dëgg neex yàlla li nga xam ni président Macky Sall def na ko ci enseignement supérieur ak ci njàng bi d'une manière générale mën nañu wax ni Sénégal mosu ñoo gis lu day noonu loolu université yi yokku na ñiy jàngale yokk nañu ñiy jàng it yokk yokk nañu waaye infrastructure yëpp yokk nañu mais nag am nañu aussi ay jafe-jafe loolu aussi wax nañ ko ba nga xam ni jafe-jafe yëpp am na ci yoo xam ne ci wàllu budget la ndax ni mu yokkoo xëy na budget bi yokkoowul noonu ci wàllu la ñuy soxla kon dana am comité boo xam ne teg nañ ko en place ci diggante ministère de l'économie enseignement supérieur ministère des finances ak secrétariat général du gouvernement ñu xool la nga xam ni enseignement supérieur soxla na ko ba mu jeex tàkk ndax ni ñu liggéeyee tey du ñu tax ñu xam loolu buñ ko xamee ba pare xëy na du ñu mën a defandoo lépp déedéet buñ ko xamee bu boobaa dinañu seeti dinaa seeti président de la république waxtaan ak moom ne kat lii la soxla ñu xool ministère des finance lan la ci mën a def lii bees ci doxalin bi mooy dañuy xool lañu am lan lañ ci mën a saafara te ñoom ñu xam ko. moo gën ku ci nekk rek boo jógee laajte buñ la joxee tuuti loo xam ni du faj sa soxla keneen ñu jox ko loo xam ni du faj soxlaam mu mel ni benn soxla fajowul fekk li ñuy def bari na kon doxalin bi foofu lañu koy soppee ak ñoom comme ça dina doon ni ko président bëggee mu doon une démarche transparente noonu la aussi la ko gouvernement bi bëggee mu doon démarche boo xam ni ñun ñëpp dañ ciy d'accord ne kat dañuy jublu ci université de Ndakaaru nangam bii lañ fay def bu boobaa beneen université dina xam ni bu amul loolu it la war a dem ci enseignement supérieur dem na ci enseignement supérieur mais kooku bu ñu koy def dañ ci waxtaan ak ministre bi. am na it leneen loo xam ne wax nañ ko fi ci wàllu gëstu ci wàllu recherche wax nañ ko fi léegi bi leen professeur bi leen président euh, recevoir am na loo xam ni waxoon na ko bi ñu gëstoo léegi ak ministère de l'économie gis nañu yoon wi nga xam ni fa la ñu jaar du tax ñu mën a def. li président santaane te loolu foog ñu def ko moo tax moo wax ministre de l'économie ci li nga xam ne ñu ngi koy liggéey loolu moo tax waxtaan baax ndax jàpp nañ ñun def nañ ko te xëy na bu ñu mënoon nañ fi dajawaat fii ak at wala ñaari at gis ni defuñu ko kon li war moom mooy dinañ ko jël en charge effectivement ci euh, recherche de financement yi nga xam ne war nañ ko def ci PAP 3 incha allah dinañ ko euh, xayma wax la lan la ci état mën a def. ci alalu boppam lan mooy jar ñu jox ko secteur privé ak lan mooy jar ñu uti ko ci bitim réew ak fan lañ ko war a mën a utee loolu yëpp bu ñu ko amee xëy na bu ñu jàppante rek dinañu dax ay jéego yoo xam ni dina tax ñu weesu fii nga xam ni ñu ngi ci wax nañu it ci njàng à distance ndax léegi dafa bokk ci loo xam ne mëntul ñàkk ci àdduna bi kon ñun jumtukaay yi nga xam ne am nañ ko war ñu mën a may ñu def loolu war nañ ko yokk moo tax wax naa nañu seet waa seenam ndax am na loo xam ni état bi am na ko liggéey na ko yàgg na ak ñeneen ñi fi nekk muy ay fournisseur u accès à internet ak yu mel noonu ñu xool nan lañ koy organiser ba nga xam ni njàng mi bu jaree kooku seen seen kooku seen liggéey la yéenay wax ci yan anam lay loolu di amee ak ci yan anam la defee leneen kooku dañ koy bàyyeek communauté universitaire ñun ci fànn yëpp li ci war dinañ pare mais bu nekkee dafa war ni ko àdduna laajte léegi ndax ñun xam ne ñu bari ñu nekk fii di jàng bitim réew te ñu Sénégal kon Sénégal war na mën a am loolu kon loolu incha allah la ca war yëpp ministre de l'enseignement supérieur dinañ ci ñëw ci sunu comité bi xool nan lañ koy defee ak yéen ba nga xam ni dina doon euh, lu mucc ayib xale yi mën cee jàng ñenn ñi am xam-xam bi nga xam ni ñoom ñi toog jàngi aussi ñoom ñooy yem ndax loolu moo am solo